asalaamaaleykum mbokki internet yu Guédiawaye info point com match xale yi cité ak notaire euh, match bi nga xam ne dañ ko nekk match xam ne koy arrêté ndax premier match bi dañ ko euh, mu nekk xale yi ak notaire match bi nag euh, amoon na enjeu premier départ bi mais léegi dañu baax nag ba ñu laajee information bi ma match bi amul enjeu noonu ndax deux équipes yëpp actuellement daanaka suñu nii la ñoom ñaar ñëpp mën nañoo tourner waaw mën nañoo qualifier laïcité ak notaire en direct sur info point Ah, ah, ah. nawetaan jeune de Guédiawaye xale cité notaire actuellement zéro partout. match bi nag dafa am euh, euh, koy jiwaat nii quoi. étudiant comme notaire. Actuellement, je vis partout. Merci.

Wow.

actuellement pour franc pour xale yi pour notaire ay seen

Tolong naik pulau Balmejun.

Allez, c'était notre première mi-temps, partout. bu marché choc la entre xale cité ak notaire première mi-temps Gracias. kê vậy đi bây giờ mình lên tươi tươi rồi đi nó đi nó phải bê bây giờ anh lên bao quay chỉ cần mất đẹp لا بيت انا مبين Thank you.

waaw maanaam bu ma nekk ci moom daal comme matériel matériel matériel bi

Mansur Fadlan actuellement, euh, pour laïcité. Ah, waay waay ñu ngi daw lii waay lii moom moo sa ko dëgg Ali Ali

ndari seex waaw. actuellement match bi un but notaire cité Jokko moo dugal léegi léegi franc moom actuellement nii ay dégg marché bi en direct sur Guédiawaye info si bi nag boo seetloo amul enjeu noonu comme ni mu meloon premier tour vraiment ñu tourne trop projet boobu woon au passage ñi ngi rendre hommage ki nga xam ne moo ci génn àdduna yal na yàlla xaare ko àjjana moo taxoon ñu reporté marché bi aussi loolu dañ ko def rappel vraiment mu nekkoon euh, kenn ci xale yi si te vraiment mu génn àdduna ñu koy ñaanal yàlla na yàlla xaaral aljanna ak mbooleem rek koo xam ne rek euh, ku gëm sport nga wala koo xam ne rek jiitu nga vraiment moo taxoon ñu reporter match bi ndax ànd naa équipe bi après information yi le jour boobu la génn àdduna nekkoon ci dirigeant xale yi si te yàlla def na ko soog mu génn àdduna vraiment mu nekk aussi lu métti yàlla yërëm ñu nuyu téléspectateurs yi am na géej géejawaay info point com képp xam ne yaa ko yi def si lépp dinañ def en si géejawaay info jamono jaxaay aussi match boobu xam na ne ñëpp a ngi koy laaj vraiment gars yi ñu ngi koy ñu seetaan action boobu gardien jamono jaxaay mu nekk match boo xam ne ñëpp ñu koy laaj ñu ay ñu wax ndax day nekk en direct sur Guédiawaye zéro pour xale si bi Matar Ndoye né? bonjour oui Matar bonjour actuellement euh, pour Aline Cité match bi nag match daanaka ñaari koñ yi ñoo jàkkaarloo lekk rek la la dul say de dawal ak yow am naa ñoo koy fekk muy def ay activité yoo xamante ne mbër sax du ko def.

Bilay esa quinta, cada vez. waaw xoolal neex dugal ba leen sa dugal dugal bi ba mu ne 3 heures. ah fin yi gis nga waa waa Aliou Aliou ñëpp dama ci. ah maa ngi

dafa ëppal. boo yoree ñaar ñett ñett day waaj a jeexal waaj a koy mën. waaye war a jeexal nee na naa ne waaj day saaga rek naan ko. li lay def nga fënde. daa yéex daa yéex waaw jëlee information Gracias, Por you.

lii duut mag moo gën a yomb duut day ndax sa duut la moo gën a neex moo gën a yomb nga sant ak moom sa borom mën na ndey duut gis nga duutee xanaa wala wax loo may ndey dara waaw mbir mi tamit jëpp la jëpp la amen diira diira seen taw seen taw <laughs> dawal dawal normal boy ali demal yobul yobul bi baax na xool ko mi extérieur ala extérieur ay waay Jangan 1-0 pour Xaley Cité xalay cité 3e journée dan zone de Guédiawaye xalay cité notaire en direct sur Guédiawaye info Football ayo a football. I enjoy football is a football.

te dañ ko am en intégralité si YouTube Guédiawaye la war a dem tuuti. Maa ngi dem moom. Khadim Diagne ji merci aussi toi merci aussi en intégralité da ngeen ko am seen YouTube Guédiawaye info. merci depuis Italie Khadim Diagne. Adim Diagne nee na merci depuis Italie Adim Diagne nee na merci depuis Italie ok Khadim 1-0 actuellement xale yi si xale yi ñoo am 1 ci notaire en Info Guédiawaye Info TV. Abrir contra o Socão. Trente-cinq minutos para à jour. Thank you. voilà Issa yi góor gi xam nañ ne Issa yi gardien notaire Thank you.

en quart de finale match leen am en live sur Guédiawaye Info après l'intégralité bi yëpp mën ngeen ko am sur YouTube Guédiawaye Info. Thank you. man deux ans Man, man yéen a yem rek Sadio Guys, ele disse que era é 150 né? ou algo Eu falo de lugar aí, eu falo da minha mão, eu falo da minha mão, Vai na né? waaw moo gën a sox moom moom dëgg nee na man moom xam naa sama bopp góor moom foo teg man ma ko assuré moom moom jaar ne ko nii man sax dëgg la. nga ko fee abonné sur YouTube Guédiawaye Info TV match bi yëpp après en intégralité foofu dana jàll en intégralité sur Guédiawaye Info TV. actuellement 1-0 pour Alay Cité but contre Soldats

Gracias. Back.

xale cité production ka xale cité ñoo dóor bu 1-0 première mi-temps jeexagut des na quelques minutes xanaa kon sànq mais léegi beneen bi bu sànq bi fii nii lu tax ko waxoo leen kii ah

Revier bi actuellement 1 actuellement 1-0 pour yi Cité but contre son camp match reporté bu ñu doon yi en direct sur Guédiawaye Info kon nag de moment à l'heure ci deuxième mi-temps après match bi daan ko en l'intégralité sur Info TV sur YouTube Guédiawaye Info TV ok merci

Jas. Jas baara ma. Thank you. c'est parti. jadi biarkan Dengan main pindah. Thank you.

จัดคำนาในลียังเป็นคนเดียวเก่าเลยใส่ตาลิไม่สัดเจนเข้ามาเล้ว আমি আপনাদের আইফোন আইফোনে পড়েছে আমাদের xaar gars yi pare. lekkal day lool waay waay waay. saa dégg bi laa bëgg de. waaw ci dugub day lool. bëri na waaye yaa ko. waaw yow ah Bouga Waly. ah ñoo tuuna waay.

Whoa, whoa, whoa, whoa. Cité Diokom euh, 1-0 pour Cité Diokom. Troisième jour, troisième jour, navétane jaune bu Guédiawaye. En direct sur Guédiawaye Info. waaw mu ne depuis Espagne doomu notaire yéen leen dóoragum 1-0 nag doomu notaire jaajëf waay depuis Espagne doomu notaire actuellement notaire lañ dóoragum 1-0 nag doomu notaire waaw yéen yéen leen yéen leen mëneegum 1-0 nag doomu idi idi Guèye 下一位 Diallo bu foofu waay. Bayangmu dulu, bayangmu dulu. Wah, enggak ada tapi tá ورا بيع مازي ويقول رجل عين جانا لو بجانا لو بصانا بالا بالا بالا cité notaire en direct sur Info Guédiawaye Info en l'intégralité ba ngeen am match bi Info TV lá. 1 0 pour Khaled Cité. Não, não, não, não.

moto craie bi ñooy jàll noonu. Thank you.

Actuellement 1-0. xoolal bal bi xoolal bal bi. 1-0 pour xale yi cité. 8 contre son camp. cité notaire 1 0 pour xale cité allah si Guédiawaye info ñu nuyu gars yi suivre yëpp en direct yi Oh

Gracias. Ah, what a r y o h a t a you?

عندك سوق جاي اي 4 هذا سيتي غور سك موسى نجاي انا ميرسي بوكو actuellement 0 0 pour Khalay Cité.

ko bere

Match notaire, c'était actuellement 1-0 pour Palais Cité. Combien de minutes Nous 20 minutes actuellement. Mahatma Gueye. Mahatma, nous avons 20 minutes. ñu ngi ci 20 minutes lañ joué gum deuxième mi-temps. non deuxième mi-temps joué nañ 20 minutes. deuxième mi-temps joué gum nañ 20 minutes. पानी मोर्फ बोल रहे अपने ऑनलाइन ग्राफिक यूट्यूब के जो आए

ah waaye mu jéem ah mu gàtt bi laaj deuxième waaw. wàcce contrôle waay ah Tudo bem, quantas chances Eh, eh, libur nyarne. Eh, eh.

Merci à toi, Merci à toi aussi. Bon courage, merci. Mais abonné leen YouTube nag Guédiawaye Info pour jàppale ci. Info TV soo demee YouTube da nga ko fekk foofu. Après match bi danañ ko foofu en intégralité. Mahatma merci. quart de finale match en direct sur Guédiawaye Info. Thank you.

Gracias. seeraan bu jëloon ñoom sax dañoo ñu dóor kii nii yabu ñu nit ñi seen zone yi boo yooyu ñëw kenn bañ leen gaañ waaw ah, waaw amul dara

sóor la ne sóor la ne moom wax dëgg zone boobu mi nekk web musée parc moo nekk nii di filmé nii Massa ban zone la musée Adaka Point gaaw rek Thank you.

waaw mu ne reporter la man vétéran la quoi <laughs> blanc yi moo nekk euh, notaire en ah rouge boo nekk xale cité en direct sur Guédiawaye Info Ababacar Mbaye Fallou Thiaw leen saa waay reporté leen bokk man ci vétéran yi laa bokk waa actuellement un but ñoo amagum 1-0 but contre son camp match bi dañ koy joué nag mooy waroon nañ ko joué dañ ko reporté woon loo tax ñu def ko matinal waroon ko fubal semaine bële passé mais dañoo amoon seen benn dirigeant bu génnoon àdduna ñu koy ñaanal yàlla aussi yàlla na ko yàlla xare aljanna quoi vraiment yàlla na ko yàlla xare aljanna moo tax match mi ñu reporté ko indi ko matinal mais incha allah vous aurez tous les matchs quart de finale en direct sur Guédiawaye Info en même temps ngeen waaw El Hadji Sakho nee na bonjour oui bonjour El Hadji Sakho Ababacar Mbaye Fallou Thiaw ñu ngi koy ziar Mahatma waaw aboneel Guédiawaye Info TV mu ne mu ok merci vraiment Guédiawaye Info Mahatma mu wax loolu Moussa Ndiaye noonu tamit vraiment presse sec jaajëf waay ñaata ñaata on sera actuellement xam naa daal di ñëw am na fi doole ndax moom koo wax di ñëw di ñëw la ñu ñu ngi leen di ziar depuis Italie fu ngeen mën a teg caat ñu ngi leen di def si score bi actuellement ñu ngi ci 1-0 pour xale cité cité moo amagum 1-0. cité moo amagum 1-0. waaw mais mais troisième suñu jaay boo jël fee. jël deux. Oui, allô. Eh, peut-être 3 2 3 Moom la mi sa nañu porte mooy. Par mission Masjid. Parce que membre daal ni affaire ban la. Waaw, maa ngi ñëw su jeex bi nga maa ngi ci des semaines. Maa ngi ñëw. cara ainda, né, Aí fica fila. Ah, ça, merci, bon boulot. Fethullah Gulen Sall nga woo toog loo xam ne Graag je graag, kom ik er wel.

booy bi comédien lan nag de ba sare be jaaroo suwa ci xibaar Thank you. merci et bonne continuation en, na merci bonne continuation en avant notre actuellement 1-0 pour xale yi si sur Guédiawaye Info après en intégralité mën ngeen am match bi sur YouTube Guédiawaye Info TV abonné leen pour ngeen seetaan match bi en allah après en ngeen am match bi. tayo. Labahan nila. Ano ba ito? Ibabang mo tayo nito. Alibor na ito. Nagsukan nyo. Sino? Maganda. Maganda. Buang ganyan ako. Buang ganyan ako. Buang ganyan ako. Buang ganyan ako. Allez, Rabio. Allez, Matrix. Thank you. al temps bi action passée noonu. mi ngi ci 34 minutes deuxième période.

di ñëw. Thank you. donc booy amul seen terrain bu gars yi bëgg a nangu maa dugal Modou Lo fii bi waay actuellement 1-0 pour xale yi si jeune de daal Guédiawaye en bref sur Guédiawaye info après man ngeen amaat l'intégralité match premier mi-temps deuxième mi-temps sur Guédiawaye info ci ci YouTube bi. gis nga saa yi seen vision yi ah liggéey de ah baax na leen rek dugal leen rek. nga yii lay def ak yeneen. day def lu ko neex nga yii lay def ak yeneen. Thank you. Trabalha, Macer, que tá raiado. Era, Macer! É pra onde você ia?

Gracias. laaj ko laaj ko gars yi la ñu wax mas bi ñoo mën a woon si ñoom

Ahora voy Ya hacer <laughs> Evo, ಬಾಳಿ ಕೋಪಿಲ್ಲ deuxième mi-temps match Guédiawaye match Cité Diokob ba tey 40 minutes. waaw demi-finale yi ñoo filmé segna Gamza leo. Ah, vuol dire che non c'è la raccontata. Aiuto, andiamo una. Aiuto. Dai, dai, dai, dai, dai. Wow, wow, wow. Now you're more wow.

Cité Diokhom Lucas euh, deuxième mi-temps un but pour Cité Diokhom contre son dara amul waaw bu commencé sax si kii dina ñëw si senior xale nga xale nga waaw day Gol bine, gol bine ai! Serrânio. Tuxa.

Non si Hadi Ermen. Durursun bal bir vay. Yo yo. Wah. Wah, wah, wah. Wah, gol, wah, gol, yo. Wah.

बेटे जो घूमने का है हमें ज़रा ज़रा ऊपर उसके जो हाँ Sarké ak Notel la doon toog muy génn muy troisième gardien bi moo gaañu noonu gardien après l'intégralité Max man ngeen ko am seen Guédiawaye info un zéro pour Khalil Cissé temps bi 46 minutes parce que ñun ñoo njëkkoon départ au moins 2 minutes 3 mais du yomb dañ leen éliminer ñu toog waaw waaw amul problème jaagatu crème nee na pardon waaw amul problème

Más mineiro dara lá. la. Ya okay. Cité Diouf Cité Diouf door ko 1-0 en direct sur Guédiawaye Info après bu paree en intégralité match bi vraiment mu nekkoon match boo xam ne bu nekk match boo xam ne bu doon arrangé waat ci Guédiawaye Info kon nag ñu ngi jox ko daje beneen bii di ñëw en direct sur Guédiawaye Info après mën ko am intégralité du match après mën nañu am intégralité ci match bi YouTube Guédiawaye Info kon match bi may ko ma jël ko sax dama ko bëgg a laaj. dara taxaw na ma laaj na ko waaw. loolu supporter bi si te loolu waaw. kon am en intégral match bi sur Guédiawaye Info TV YouTube kon nag ku amoon rek incha allah donc kon nag ñu dox dox